mbégteeg bànneex la ñu am saa su nekk rek di ànd ak yéen ci site internet bi di Buzz Actu 221 li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu ko di xamante ne daf na yëkkati kàddoom nag ci jafe-jafe yi nga xamante ñu ngi koy ak nañu defiree doomu aadama ginnaaw nag ñu nekk ci nguur gi bu ñu defee juróom-ñetti weer ci bi ñu leen installé nag ba nekk ni nemmeeku nañ tension politique yi dox ci diggante ñu faree ci bopp nguur gi ak kujjee gi mu nekk situation boo xamante ne rek ne na daal dal dina koy jaaxal lool moom Alioune Alioune Tine moom ci jëm boppam rek dem na bay daal di yëkkati ay kàddoom ci cérémonie bi nga xamante ne rek doon nañ célébrer lii di journée internationale des droits de l'homme organisée par la CNDHH commission nationale des droits de l'homme du Sénégal nekki talaata nag yem ak fukki fan ci weeru décembre euh, bu ñu sukkandikoo nag ci monsieur Alioune Tine nag la mu daal di xam ne rek ci ñi nga xamante ne ñoo ñu tiim euh, di fadee nag ci donkaasi gi li nga xamante ne moom mooy àq ak yelleef doomu aadama daal mel na ni daal euh, nañu koy defee daal dinay sooke lool maanaam daal daal dinay am ak jafe que société civile nag nee na nam lu ñu jàngal ci boobulee bés moo di ne nag ñu ci bëri ci sénégalais yi boo xoolee rek li nga xamante ne rek moom nañu wax ci droit de l'homme ngir ñu respecté suñu démocratie démocratie respecté suñu état de droit ak exercice bi nga xamante ne rek nguur gi ñu ngi koy faral di def di déclaration kii di Alioune Tine intervention am nag moom fondateur think tank Africa Jom Center nag daal gis ne rek nguur gi ci jëmee boppam daal dafay daal di utiliser li nga xamante ne rek moom mooy pouvoir am di ci jaay doole ndaxte nag bu ñu xoolee li xewoon ci bi di Sénégal ci atum 2021 ba nëga ni rek ñu ngi koy xeex ba nëga ni nekk xeex boo xamante ne rek kenn waxuñ ci rek jërëjëf ginnaaw remarque bu am solo bi nga xamante ne rek daal dina koy def mu nekk point de vue am nee na jot nañoo rek gis conséquence yi nga xamante ne rek jamono ji moom moo daal di am ci biir réew mi ci diggante 2021 jàpp 2024 ndaxte nag ñun ñëpp dund nañ situation boo xamante ne rek état hors norme la maanaam daal état bu nekkul ci yoon ci terme bi nga xamante ne rek moom la ko mën a tuddee nee na nag faw yëf yi rek ñu daal di xam yan jeexital la daal di am ndaxte nag am na solo lool mu daal di wax ne rek bu ñu bëggee dëpp boobu boobulee tendance nga xamante ne rek dafa daal di doy waar doyen ba société civile sénégalais ma ngay sàkku rek ñu daal di defaat ab retour orthodoxie bu ko defee ñu xool naka la ñuy def rek ba adapté yenn respect yi fexe rek respecté li nga xamante ne rek moom mooy suñu démocratie réew ci mbir mu nu mel rawatina ci conquête bi nga xamante ne rek ñu nekk ci nguur gi nag ñu ngi koy jëfee nañu respecté état de droit ak sañ-sañ bu ko defee rek suñu démocratie ak suñu droit humain mën a nekk en ordre di kaddu kii di Alioune Tine jërë ngeen ci ànd bi bu leen fàtte di abonné ba cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar.